4 avril théâtre national Daniel Sorano euh, daañu fa amal guddi gu mag ak ki nga xam ne ni mooy sunu soppe di euh, Daouda Mboup Daouda ñu ngi lay nuyu gërëm la ci euh, teewaay bi yaa ngi jëm Sorano le 4 avril ñu bàyyi la nga nuyoog sunu xarit yi nga xam ne ni ñoo àndandoog ñun ci waxtu bi. alhamdulillah. الذي حنار الوجود bidaraati xayrul bariya yéen ñi bëgg sayyiduna Muhammad def leen ni ñu màggal waaje ca Madina mooy alayhi salaatu wa salaam maami Cheikh na Cheikh Saadou Labi xeer mooy xamarul hidaayati wa kawkabul inaayati rabbaaniyati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang ba ca Madina mooy misbaawu rahmati almursalaati ki la yàlla yónni si jaam ñi almursalaati ku am jàmm sayyidina Muhammad a tax almursalaati wa samsu diin al islam man tawallaahu mawlaahu bil hifzi wal imaayati wa riayati sarmadiya wala maqaama wooy fawqa kulli maqaam sayyiduna Muhammad wala maqaama woo fawqa kulli maqaam wa fadaloo alal anbiyaay wal mursalina yéen ñëpp def leen nii ñu màggal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sanga ba ci Madina waaw waaw wala maqaama woo bala ñu ko xam ñu dem ba yowmal xiyaam yowma laa tamliku nafsun li nafsin sayan wal amru yow ma lillahi su keroogee la ñuy xam kan mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii moo waral la 4 ñii di défilé naan dañoo am sunu indépendance ñun ñu def ko indépendance day l'islam sante ko sayyiduna muhammad bu keroogee yowmal xiyaam naaj wa day tàng lool yàlla wàcce jantam bi mu tiim sunu sunu yuuri di bax ba mel ni ci luy wañax keroog la ñuy xam kan mooy maami seex na Cheikh Saad bu kan mooy maami Cheikh Mafu doomi saaya kan mooy maami Cherif Alwali Maane Njaay kan mooy sangub Seexal Maxtaar borom daaru ñu dem sunu maam Adama naan ko yaay abul basar adama naan leen nafsi nafsi taluma leen sama bopp laatal keroog ko fa yaakaar dafay xaar waaye sayduna muhammad moom la ñuy naan ko pëkk pëkk yaa rasulallah mu daal ni bëri jóg moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf kontaan nañu eh, ci eh, li ngay def ak ni nga ko mënee macha allah donc yaa ngi woote eh, le 4 avril ca théâtre national Daniel Sorano ndax mën nga ñëw ak ñun ci solos bis boobu waaw asalaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk réew mi ak bitim réew. Mhm. Pape Cheikh maa ngi leen di ziar. di ziar professeur di ziar sang bi toog di ziar soxna yi baax yi. xam ne dañ leen di suivre fi ñu toll di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen jàmm. Pape Cheikh mu nekk bis boo xam ne ni ma ko waxee léegi. ca ngoon nga bi mooy bisu 4 avril nga xam ne bu ñu xëyee dañuy défilé. Mhm. ñun bugg ci guddi ga dañuy def sant Seydina Mohamed. Mhm. ndax ko am jàmm yonent bi moo tax. nit ku nekk amee nga njukkal Seydina nga xam ne ci desu leeram lañ bindee. lépp loo am lu yàlla bind moom moo tax. amel nañ ko njukkal ba tax ñuy ci sant Seydina Mohamed waaye nag ku nekk am nga yoon ci bunt bi sunu sunu bunt ci kër Seydina Mohamed ñu mooy maam Cheikh Makhtar Diop borom Daaru Diop mm. maami Cheikh Makhtar nga xam ne moo nekk ci ngumba daaru Diop moom la ñuy sargal mm-hmm. di ci delloon nag njukkal sunu baay bi nga xam ne moo ñu yar def ci ñu lislaam mm-hmm. ba duñ dem mukk fu ñuy xeebee def ñu ay tàkkat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy woote le 4 avril te mm-hmm. Daniel Sorano insha allah lañ koy wootee nag di ci invité Sénégal yëpp di ñaan yàlla yéen waa plateau bi tam ñu ngi leen ci invité incha mm. allah lu guddi googu di demee bu soobee yàlla le 4 mm-hmm. mm-hmm. nekk fii ci réew mi ak Cheikh Fadal Diop mi nga xam ne mooy rakk ci sang bi doon Baye Fallam xam ni moom lañ teg ndigal li ci loxoom. Mm-hmm. mu jotali ko àdduna yëpp. maanaam fi ñu mënul woon yegg yëpp. sunu sang Cheikh Fadal na fa. ndax moom la sang bi jox yóbbante bi. diaspora bi. ñu teg ko ci loxo Cheikh Makhate Diop suñu sang moom it guddi gi fas yéene ñu 19 mhm. ñu def mise en place yi. 19h mhm. ñu tàmbali programme bi. Mhm. incha allah fas yéene jàkkaarloog Sénégal jàkkaarloog askan wi. tagg Seydina Mohamed waaye nag wax leen kan mooy maam Cheikh Makhtar. ndax maam Cheikh Makhtar Cheikh la ko liggéeyal ba Cheikh Seex Saad bu gërëm ko mm. mu liggéeyal Cheikh Bey Calaw ba mu gërëm ko ñu yóbbu ko ci Cheikh Ahmadou Bamba mu xamal baayam ni kii benn buntam tëjantul fa suñu borom mm. kon mooy borom bis boobu mm-hmm. ñu fas yéene kaa sargal mm-hmm. ànd ak waa Sénégal yëpp mm-hmm. incha allah ànd ci nag waa TFM waaw di ci woo ñëpp nag di bëgg ñëpp teel a ñëw bala moo fees waaw surtout ak numéro de réservation yi fu nit ñi mën a woote pour mën a am euh, pour gis waaw. waaw 77. 705. 29 88 waaw mu ngi nii 77 705 29 88. voilà ak ak 437. voilà 81 13. 13 waaw kooku mooy numéro ménagère bi. macha allah képp kuy ñëw boo ci wootee incha allah. incha allah dinañ la teeru. macha allah en même temps def nañ ci organisation bu jaar yoon. Mm-hmm. ak waa relève de Daara Diop. très bien en même temps bu ñu ci jugee. Mm-hmm. le 20. Mm-hmm. ci la ñuy def nag ziaru Cheikh Makhtar bi nga xam ne waa relève de Daara Diop ñoo koy def ca Caaroy. macha allah di ko wax ñëpp nañ ko préparé. incha allah bu ñu ci jugee rek dañuy waajal loolu. voilà macha allah ñoom nag dañoo am seen weekend star mooy yeewu leen vendredi am itam seen Dakar ne dort pas bu ñu noppee ci seen i programme dañu koy wone ci TFM religion